ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi siiwul seen site internet bi di 24 actu ñu desuwaat ak yéen ci seen naafi la ñeenteelu guddi ku ci julli ñeenti rakaa rakaa bu ci ne fatiha benn yoon qul yaa ayyuhal ñetti yoon ñu baamtuwaat ko fatiha benn yoon ñeenti rakaa nga ciy julli benn yoon qul yaa ayyuhal kaafiruna ñetti yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila